జమ్మనే jàmmane jàmmane ñun mom lañu ñaan bu ko defee ba tey bokk na ci li nga xamante ni alquran xayaatuna dina jafeeñ mooy nga attewoo li yàlla wàcc te mooy alquran yàlla lu mu wax فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا ديدت لي فوق دامي ول نونو وربك جنلنا لسيب صبروم واو القسم وربك جنلنا لك سلن بروم لا يؤمنون ني ووت جم دنيو جم حتى با يحكموك ني نانگ لولا لن اتيو ني نانگ اتي لولا فيما تي ليغا خامتاني شجره بينهم مودخ سين ديغنتي سين بير سين اي بروبليم بروبليم لان سوسيال problème lan humanité problème économie problème famille problème de famille problème ba problème jeex lépp nañ ñu nangu ñëw ci sa kanam nga atlé gaay al qur'an moy meilleure solution ci suñu mbolam problème yépp buñ ko xamé buñ ko xamul buñ ko nango buñ ko nangul al qur'an kessé moy atte bu jubbi benen atte bu bokk lak atte al qur'an ay waxi kassaw kassaw la al qur'an moy li yàlla wàcc ci sayyidina muhammad يلا كو واتي نجر نؤتش ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالا بعيدا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون يلا كو واتي القرآن كرني أتي واتش كبولن أتي بنك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته بني أم بن دنج دنج خل بني أم بن خط خط خل تلنا nga atté han ñu ci and 100% way sallimu taslima bu ñuy jébalu té jébalé lañ yoron lepp ñu bay واو إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فقني واتي القرآن منه ويسلموا تسليما بني جبلوا يالله يخلب يالله booy ci jébbalul ci yàlla toroy sunnas su yeneen ba xam ba yilla te boo yeboo wutub sëriñ mu jiitu ngirik mu xàll yoon bi doon sa niitu ab sëriñ mën ta ñàkk mën ta ñàkk kan mooy sëriñ bi mooy ki nga xamante ni day téye sa loxo wan la ni fii mooy yoonu yàlla fii la sayidna muhammad jaaroon loolu la ñu doyee sëriñ kay sëriñ mooy ki fi wut sayidna muhammad ji sëriñ mooy ki fi wut sayidna muhammad ki jàngale yoon bi yonent bi yàlla yonent yàlla Muhammad nekkoon ñu am ci macha allah ay sëriñ yu baax waaye sëriñ dafa am ay melokaan te jamono ji fi mu ne nii sëriñ si dañoo jaxasoo pour nga xàmmee sëriñ sek ñu dul sëriñ jafe na lool moo tax foog ngeen teey bu baax xool fi ngeen di teg seen tànk bu baax mi ngoog ab sëriñ day am xam-xam bu amee xam-xam day xàmmee bu xàmmewee teg tànkam ci alquran sunna ba pare xam jamono ji mu tëddee dañ ko xamanteni ku sàmm la ku dëddu aduna ku xam yàlla ni ngok koku muy ab serigne koku mo lay won yoonu yàlla mo lay won yoonu sayyidina muhammad moy kilay jàngal alquran ak sunnat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lolou moy atté wo ci li yàlla wàcce mën ta ñak pour ñu dund alquran alquran mo ñu jàngal pour lan ñu attewoo ci alquran bi ñu bëggee dund alquran foog ñu jëfe li alquran wax mooy loolu ñeenteel bi mooy ñun sunu relation sunu biir deuxième élément bi mooy sunu biir mooy nit ñi seen biir ki ëpp xaq ci nit ñi ginnaaw yàlla ak yeneen tam mooy waajur mooy waajur gis nga alquran foo xool xaqi waajur yàlla koy dindil xaqam boo nee قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أجلا وبالوالدين يعني إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أجلا وبالوالدين يعني إحسانا وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أجلا وبالوالدين يعني إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أجلا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي أقلا ولوالديك maanaam fu الله passé حق الوالدين ridallah fi ridal walidain ngërëmal yàlla ci ngërëmal ñaari waajur ngërëmal yàlla ci ngërëmal lan ñaari waajur moo tax shaacir ba nee na boo dee teral ña la saa yoo telee di nga gis sa doom ju baax di fay soxol di kontaan boo màggalul ña la sa doom ju bon di fay soxol di gañ gaji ngay lan ñaxtoo ko ñeetaan شاعر بنانه العلامه الفهامه الدراكه الشيخ محمد الهادي مولانا حفظه الله ورعاه نانا بودي ترى النلجو سايو تلي دينجس سدوم جباخ ديلا فاي سخول دي كونتان بو ماك بو ماك غلول نك بو ماك غلول تيرالو بو ماك غلول سدوم جبون ديلا sa xol di gañ gañi ngay ñax toog a ñeetaan waajur moom kamata diinatu daan la nga ca leble moom lañ lan moom lañ lay fay te ngërëmam mooy ngërëmal yàlla xarabam mooy xarabugu yàlla bu xarabee yàlla xarab bu meree yàlla mer bu kontaanee yàlla yàlla kontaan mi ngo alquran sant nañu bu baax a baax ñu tere suñuy waajur ñu tere suñuy waajur am na ku ñëw ci yonent bi ne man axaqu nnaasi bi xusni saxaabati ya rasul allah kan mooy ki ëpp xaq ci sama lan ci nit ñi kan mooy ki ëpp xaq ci man ci nit ñi mu ne ko ummak sa yaay mu ne ko waaw sama yaay après mu ne ko après sa yaay mu ne ko après sama yaay après mu ne ko après sa yaay sa yaay ñetti yoon ñetti yoon ñetti yoon boroom xam yi nee nañu yaay ñetti yoon lu tax ku ëmb ku imbi wasin yaani yay ku nàmpal yay ku ko ci fekk ku ko ci fekk kenn fekk ken ci kenn yi la sa yaay njëkk ëmb di bëgg di jafte lu mu lekk du dara bis bu nekk muy bëgg dee te mënoo ko sukkal te mu tëdd ay guddi ba tey mënul nelaw juróom ñeenti weer nga yàq dundam gi lépp nga judd muy ndax ci yow oh. ak ni mu néewa doole jigéen ni mu néewee doole juróom-ñeenti weer mu ëmb la ci biiram bi boo lekkee moo lekk boo naanee moo naan boo tëddee moo tëdd nga nekk ci biiram bi rek nga dem ba judd mu ne mu lay nàmpal ñaari ak yal boo feebaree mu feebar boo nelawul gudd mu nelaw guddi ñu sonn subaak ngoon guddi bëccëg waaye nga nga jël sa waajur def comme sa moroom rek def ko sab moroom yàlla mu ni fala taqul lahuma uff li gën a suufe li gën a ñàkk solo yàlla mu ni bu ko wax sa ñaari waajur nee nañu mooy chëtëtëtët wala mbas wala ah bu ko ñaari waajur ah ëpp na bu ko def mukk waajur du moroom de ku jur a kooku kooku kooku ndawul de baay yaay suñ bi def ay ay séminaire yi séminaire ngir xool naka la ñu mën a fa lan fexe seral seen xol ñu kontaane yàlla kontaan de mais moom yàlla mu ni woon donte woon ay yéeféer la ñu sax ànd la ñoom ànd bu rafet wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye nag wa saaxibuhuma fi dunia maarufa bu ñu bëreeg yow pour génn la sa diine déedéet bul bokkaale ak yàlla ngir wax gi ñu la ko wax déedéet waaye nag àndal ak ñoom lan ànd bu rafet defal ci ñoom ak njekk mi ngoog kon loolu mooy waajur mi ngoog sa mbokk say mbokk jokk mbokk sa famille ñi nga xam te ni say mbokk lañu nga bokk ñoom ci wàllu baay wala ci sa wàllu yaay yàlla dafa bëgg nga toppatoo leen bu baax sama borom yàlla mu ni walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار نيفتي فتي كولري لي دغ كولري بني متال كولري بارا ني دغ سينو مبوك دغ سا مبوك يالا بويلن موي سا مبوك غا دغ كو سا مبوك لا باي باي وروكو باي جابال سي موم جابال جابال سي موم يالا مولن بولن يالا بامو ساكي مبوك مبوك فا جوي ni ko yàlla fi may yóbbu may duñ may dagg rek qala allahu tabaraka wa taala ana allah man may yàlla ana arrahman man may arrahman xalaqtu rahim maa sàkk mbokk ba pare jox ko sama tur maa ka xaral ci sama tur jox ko mu tudd man may arrahim moom mooy arrahim waaw fa man wasalaha ku ko jokk wasaltuhu dinaa ko jokk ومن قطعها بتته قطعته كقدقنا دق مرخي أنت من الرحم معلقة بالعرش مبك من عرش لوح من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله كما جك يلا جك له كما دق يلا دق له تي أنت من أنا بقول لك بو يجي سرعت رك نار نيجي نك جس ما يمبك أكل ري نار نيونو نيونو رأيو بني بري أي problem nañu jox suñu mbokk nañu fonk suñu mbokk yent bi neena sallallahu alayhi wa sallam mbokk ku bëgg yàlla yok sa fan yok sa bu wërsëg na nga jox sa mbokk mi ngoog ñi nga xamanteni duñu lan dañu dagg seen mbokk duñu jox seen mbokk yent bi yàlla mu ni ulaika lahum la'na yàlla rëbb na len yàlla rëbb na len te bu ëllëgë ñu dem safar wala hum suu uddaar xoole fee mu ni alladina yuufuuna ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل نيجوكسن بوك ويخشون ربهم نيرغل يلا ويخافون سوء الحساب نيبايخ اليوم القيامة حساب بفنك ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار نيوني لأمن أجنا أمن يكل قنيخ آه جنات عدن يدخلونها فرفارلنا لن أجنا عدن àjjana gu saq gu neex gu temtemi gu riche yadkhulunaha dañ fay dugg ñom man salaha min abaihim ak ña baax ci seen ay baay wa azwajihim seen ay soxna wa durriyatihim seen i njaboot wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab servi servi yi nga xamanteni te malaaka yi ñu me servi gaay yi nee na bu ne ñu fay jaare salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar jam dund len ci jam ngeen ne ci jam ngeen dal ci jam lépp day neex dund gu neex ngeen am fi yal nañ ci yàlla boole kon mbokk ngok bes kay toppatoo bu baax mbokk xam nañ leen bu baax ba tey bokk na ci ñu ñu wara bàyyi xel ci sunu environnement bi sunu société bi ta alquran bàyyi lu leen xel alquran hayatuna nga xamni alquran moñu boole ak ñom ñu wara dund alquran ci ñom moy njirim njirim jaamu yàlla yi njirim jaamu yàlla nak xam ngeen Sénégal amna fi ño xamanteni ni ñu am sen xarit bu noppalu mu baye xaliss bu bari ñu dem daali fexe ba dugg ci fami ba tak ndaw sa bu ko defé xale yi ndaw ya ndeysaan xaalis bi ñu leen bàyyi ñu ni ko ñu ni ko pëndiix lekk bari na fi de lan la yàlla wax ci ñom إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ñi lek alu njirim ci kaw togn lañuy lek safara safara la inma yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna saira te dañuy dug safara wal waliyadu billah fa ama alyatima yatim fala taqhar bu ko lan bu ko dal yent bi neena ana wa kafil al yatim ka haatayni fi al janna batay bokk na si nga xamanteni al qur'an neena dañ leen topato bu baax moy al armala moy jigen jo xamanteni borom kërëm dafa lan noppalu القران دافو بغ ني تيرال جيجين دافو بغ طرب طرب ني تيرال جيجين من داماي تحدي بو باخا باخ مبولم اورغانيزاسيون مبولم جينيراسيون يف مسا جار والله الذي لا اله الا هو لي القران تودو سي جيجين سين تيري تودو نيكو سين اي ميند تودو كو توبتو كي القران توبتو موس نيكو توبتو نون جيجين تي باموي نيك تي رونو بابام la yàlla teel a wax ak moom yàlla mu ni ci làmminu seydina muhammad képp koo xamante ni am nga doom bu jigéen yàllaay wax de wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuha nga am doom bu jigéen nga jàngal ko yar ko bu ëllëgee buntu àjjana boo neex jaral moo ja wala wala waxul góor waay xanaa bàyyi ngay sonn kon di gor góorgóorlu mu jige fa ñu ñaan ko doom ja mu jige ci loxo bayam dem ci lan jëkkëram yàlla mu ni wa aashiruhunna bil ma'ruf ande lu ñum ànd bu rafet amana bo len bo len len bañe tamit ah man ngeen bañ dara fek mo gën ci yéen de fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allah fi khayrin kathira fa asa an huwa khayrul lakum di leen kaasal wala hunna mithlu alladi alayhinna bil ma'ruf هنت بني خيركم خيركم لأهله كي جنتين ميت جنت جبرم منك تكر جكرم نكاي ترى منك بايم نك جكرم يا وحق مجتمع بيب يلا الله وحق لن تلم من سيدنا محمد يا انت بالموخ نينا الساعي على الأرملة كي خي أدي جونت نجري جوخ أرملة لمدندة كان ما أرملة ما يكوح من تلن jëkkëram lan dafa faatu nee na kooku kii sonn di jox jigéen pour mu dund parce que jëkkëram dundul nee na kooku kal mujahidi fi sabilillah comme ku nekk ci toolu xare benn ba pare al qaimi leyl al saimi nahar mi ngi mel na koo xamante ni guddi gi lépp day julli ba mu jeex takk te bëti bu jotee mu woor kon alquran dafa bëgg ñu teral jigéen ci mboolem maraaxil yépp jigen bour la jigen bour la bo demé ci Angleterre li ñu wax ni ki nga xamanteni mom moy bouru Angleterre kenn amul droit nuyu ko luddul lan juroom ñent góor bu ñu ibé alquran xol ñi nga xamanteni ño war nuyu jigen juroom ñent ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو آبائهن أو أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو بني أخواتهن أو أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن bu dee jigéen bu dee jigéen kon ñoom góo maanaam jigéen yàlla da koo fonk da koo fonk yonent bi daan wax ni rifqan bil qawarir daf leen leen nank ay butéel lañu bu leen leen toj jigéen yàlla sax dafa bëgg bu duggee ci oto yow mi chauffeur dawal nank waaw bo nek ci bir auto ak jigen bu boy boy jall ci do daan na nga def nank na nga tegg sa tank bu den deuxième na nga na nga duggal len premier na nga baye premier dalal premier nga glisser bu baakha a baax te nga xamni ki nga yor lan bour la yalla ko teral yalla ko fal suratul nisa ana suratul rijal yin góor li jigen ñi am biñ ko am ñu ko fen motax ki wara sante yalla mooy jigéen jigéen yàlla da ko teral ah yàlla da ko teral ma akramahunna illa karim ma ahanahunna illa e illa la i mi ngo te ñoo dem ci dund sayidna muhammad lu bëri foofu mi ngo léegi nag li mujj ci waxtaan bi mooy li ëpp solo ci waxtaan bi mooy al axlaaq mooy jikko xam nga nga tax moo ëpp solo ci waxtaan bi parce que bu ñu nee alquranu xayatuna li ci ëpp solo mooy ay jikko yent bi nee na innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaaq li tax yàlla yónni ma mooy ma mottali jikko yu rafet yi mboolem santaane yàlla yépp boo xool rek mboolem shara'i al islam lépp du ñuy xidma jikko ju rafet wallahi ñoo leen ci julli inna salata ak gaa yi leen xafada yi inna salata tanha an ilfahshai ndax loolu du jikko ju rafet ah ankay zaka xud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha tazkiyatu nafs ndax loolu du jikko ju rafet ankay ñëwal ci koor man lam yada qawla zuuri wal amala bih فليس لله حاجة في أن يدع طعامه إيه وشرابه كبايو الفن بايو الجيك جوبون يلمني أو ما صخلك سكور لك تنام كن جيك جرفة نغنيو تلان الحج أنا مو موجو تبونك إسلامي الحج للا يلا وقف فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كي أك di saga wala di dohan way def ay yëfu càggant yàlla muni ni sokot na sa aj lan nanguwut kon lépp diine lépp moy husnul khuluq yent bi mat diin lan mooy diine ya rasul allah muni ad din husnul khuluq motax yent bi neena in ahabbakum ilayya kima gëna bëgg ci yéen in ahabbakum ilayya kima gëna bëgg ci yéen واقربكم مني مجلسا يوم القيامه كما جنا جيجي قال لك يوم القيامه ماي احاسنكم اخلاقا من جنا رفت ديكولنتين من يا رسول الله لالا ند جنا دوغ اجنا انا لي أبلي لي دوغل دوم ادم اجنا من تقوى الله وحسن الخلق لي اوب لي دوغل نيت اجنا ماي جيكو جو رفت اك جرفت يالا جيكو جو لي اوب لي doomu aadama safara mooy ñaari alfamu wal farj ñaaw lammin di fen di wax lu sa yoon newul ak alfarj mooy pëy njaaloo yooyu ay jikko yu bon kon jikko moo lay dugal àjjana waaye jikko moo lay dugal lan safara moo ëpp solo kon foog ñu cité ay yenn jikko yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikkoom la woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla wàccee ci moom alquran alquran da koo daawa amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi ki njëkk gëm alquran mooy kan sayidina muhammad mu gëm ko def ko muy jikkoom ba sunu yaay aïsa ñu ni ko lan moo nekkoon jikkoy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam من كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن لذن جيكو سيدنا محمد موي القرآن رحمة لن يمانك باخ موي يرماني يرماني يرماني موي رحمة يلمني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يو ينتي يلا محمد يوني وملا لذلا يرماني yërmande yërëm gi ma yërëm lan samay samay jaam nga nekk yërmaane moo tax yonent bi nee na innama ana rahmatun muhda man yërmaane laa goo xamante ni yàllaa ma baaxaleel ay jaamam yonent bi lépp la rahma la wa ma arsalnaaka illa rahma mu ne innama ana rahmatun muhda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tunzau rahmatu illa min shaqi al aqra ab saxaabi la woon mujj gi dafa ñëw fekk sayidna muhammad muy fon hasan ak hussein mu len di fon mu ni ah man de amna fukk do mus mu len fon yent bi xol ko xol ko xamni ki du nit ko xol xol ne ko ah bu yàlla nare ci yow ak taxé di lu ma ci man bu yàlla nare ci yow taxé di lu ma ci man ngir ñak yermane say dom da nga len di wara fon amna suñu ñu xam li du sen dom sa doom dang nga koy fóon da nga koy fóon ci bop bi fon ko ci jëbi fon ko ci lex bi jël sa loxo tek ci kaw bop bi tek ci lex wi tek ci dënn bi tek ci biir bi taf ko sa bop bu baax doom da ngay ànd ak mom nga am lo xamanteni affection la da nga koy jox mooy yërmaane gi sayyidna Muhammad jàngale pour ñu am ko ci xale yi yent bi sallallahu alayhi wasallam neena anas ya anas irham as-saghir wa waqir kabir takun min rufaqa'i na nga yërëm gone te wormaal mag te wormaal mag te wormaal mag bu dee bëgg nga bokk ci ñuy ànd ak man bir aljanna yërëmal gone ta nga ta nga waggar mag mi ngo yent bi nee laysa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana wa man lam ya'rif li 'alimina haqqahu ko xamanteni wegul sunuy mag mag wegul sunu mag yërëmul sunuy gone xamul sunuy boroom xam-xam seeni xaq ñett yu am solo na ngeen ralentir bu baax ma waxaat ko yonent bi nee na ki nga xamante ni respecté wul mag laa yaxtarim kabir respecté wul mag benn walam yarxami sagir yërëmul gone te sunu boroom xam-xam yi xamul seeni xaq kooku bokkul ci man yent yàlla muhammad bokkul ci man yent yàlla muhammad yent bi nee na arrahimuuna yarhamuhum arrahman ñi yërëm yàlla day di yërëm na ngeen yërëm ñi leen féete suuf ki leen féete kaw leen yërëm leen te mooy yàlla subhanahu wa taala jammane jammane jammane ñun moom lañu ñaan